sëñ bi baal ma fàttali ma bi tur. El Hadj coach école de lutte Ndiaga saar yor ñoom euh, B52 ak ñoom Ndiaga Doole ay Sandoum 2 waaw booy yëpp maa yor sama écrit waa Balla Gaye li ma mën a wax ci moom bari na ndax suñu père la ñoo bokk nekk fii dend benn garage yaakaar naa ni euh, Elton bi mu koy récupéré ci suñu loxo boobu yàgg na boobu Balla Gaye mi ngi doogo a ci école bi. boobu ñun ñu ngi nekkoon écrit Plateau bu ñoom Mbacke bu Mbacke Ngom yoroon ak ñoom Liiru Jaan ak ñoom booy Trompeur Ndiassé 2 Ndiassé 1 ak ñoom Ibou Ndapa fa lañ nekkoon. am na benn mbapat bu bo Père Aline Seye organisé woon fii yaakaar naa ni fa ko récupéré woon mu jaraloon ko lu nekk ñun boobu xamuñu ne woon ne euh, da ko bëgg def champion mook Balla Gaye ñun dañoo jàppoon ni rek Elton suñu xarit la rek. kenn waru koo jëlee suñu loxo mais boobu comprendre lu ñu woon ne Balla Gaye lii la bëggoon ci Elton parce que am na xam-xam bi am na connaissance bi te am na lu mu mën a def ci moom par rapport ak ñun mais gis nga li yàlla def yàlla def Elton dem foofu gis nga tey réussite Balla Gaye réussite euh, moom nag nekkoon na suma xarit yuusu doom ji saa bu musaana jël combat boo xamante ni ci xale yi la danaan demal ci El Hadj Kotsou nga waxtaan ak moom xool mu xale yi moom mooy ñëwal boppam moom per Dap même moom Père Balla ci boppam. ñëw na ma Youssou dafa am combat bu muy jël xale bi nii la tudd est-ce que xam nga ko mu jël wala mu bàyyi ma ne ko jëla wala bàyyi wallahi asim loolu moom mën naa koo seere ci moom. ndax joxoon na ma cër boobu bu baax mu nekkoon nit ku baax nekkoon ku yaatu nekkoon koo xamante ni tamit loo ko musaan laaj ci làmb bu ko xamee dina la ko wax kon dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana ndax. société la defar kon tur yooyu yëpp ku ci génnee tey sa làmmiñ ñaanal ko rek yàlla mën na koo yërëm te xare ko àjjana yéen nag maa ngi leen di suivre euh, ay nit ñu baax ngeen aussi tamit yaatal lii yàlla na nekk ay télé tele télé ci barke Seydouna Mohamed yàlla mun na ko yàlla na ko suñu borom def ay xale yu baax ngeen ay booy soose yëpp maa leen yor maa leen entraîné mais franchement parler li may gis ci seen télé bi ak seen site bii néew na ci site yu ma koy gis franchement parler yàlla leen yàlla gën a taxawu yàlla leen yàlla gën a jàppale yokku leen ba ngeen yëg ko bu ñu dégg gaa yi ponk li ñu dégg leen fa yéen te incha allahu dina am bientôt merci c'est